salaam sama yi dal leen ak jàmm sama chaîne bi ci vidéo bi nag dama leen bëggoon wan nan la ñuy def ba activer mooy filtre euh, site web mooy par exemple nan def ba nga xam ne yenn site web yi doom wala en tout cas duñ ko mën a dugg voilà loolu lu am solo la ndax danga nga tax site yu bon yi say doom duñ ci dugg voilà euh, da nga leen a mën a bloquer yooyu nga xam ne duñ ci duñ ci dem quoi voilà danga leen mën a contrôler léegi pour nga def ko lu yomb la dañuy ubbi Google Chrome ñu def cent 192 point 168 point 1 point 1 voilà ñu xaar léegi fii ne nag comme ni ma la ko yàgg waxee rek mot de passe bi mu ngi ci moo modem bi mais ñun dañ ko modifier ba pare voilà léegi ñu xaar ñu après soo ko dugalee pare da ngay def authentification mooy boo nekk foofu léegi après fii nii nga dem réseau euh, comment dirais da ngay dem réseau sécurité voilà nga ñëw sécurité bi ci sécurité bi léegi soo ñëwee sécurité bi xaaral ma leen ngeen gën a gis voilà léegi nga def critère et filtre foofu ngay bës critère et filtre léegi fii nii nag nga xool ndax da ngay bloqué wala doo bloqué léegi da koy activer ba pare xam nga fii dañoo def blacklist léegi blacklist mooy site yi nga xam ne par exemple da nga ko bëgg désactivé léegi fekkee white list la mooy bi nga xam ne moom rek nga bëgg ku mën na connecté sa wifi bi moom rek lay mën di dugg voilà léegi nag. yow yaay xool black list comme ni ma ko waxee moom mooy bi nga xam ne eh, site yi nga xam ne doo bëgg kenn dugg ci fekkee waaye liste blanche comme ni ma ko sélectionné nii mooy site yi nga xam ne soo connecté ci sama fi site yooyu kese nga mën a dugal par exemple mën na doon Google mën na doon Facebook yow xool li site yi xam ne moom nga autorisé wala fekkee black list bi la moom si yi nga xam ne moom ngay teree bi kenn du ci dugg boobaay suñ connecté ak sa wifi bi lu yomb la léegi soo ko soo ko defee ba pare da ngay ñëw fii nga bind trou site bi gis nga mooy euh, filtre filtre URL foofu noonu ngay bës léegi fii ci kaw dafa lay laaj trou lii bi trou euh, euh, site bi Facebook par exemple léegi nga joxe URL bi mooy site bi comme ça facebook point com voilà léegi comme ça excusez-moi voilà léegi facebook point comme su boobaaye képp koo xam ne tàppe na facebook point comme du ci mën a dugg duggati du am accès voilà parce que soo leen xoolee ci kaw fee blacklist laa def blacklist mooy site yi nga xam ne kenn mënu cee dugg voilà blacklist laa def su ma defoon white list mooy wane mooy lan mooy que ne Facebook kese jamono ji lañ mën a dugg ci modem bi voilà affaire bi yomb na voilà après mën nga def appliquer nga def appliquer ci kaw ak appliquer ci suuf nga xam ne après da ngay jël en compte waaw kay sama gars fii lu ñu yemale vidéo bi ñu koy vidéo bi neex na la ñoo ngay ñaan nga partager ko